ay ca Ouzin naka mu. maa ngi maa ngi lay ziar. <laughs> naka jaaba ji. ci loolu yaa ngi tawféex. namm naa la. yaa ngi am jàmm baax. sant yàlla bu baax. alhamdulilah ñu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi lay seetaan ci wasaare làmb. jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi di nuyu di leen ziar di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay ah di leen wax namoon neen leen xam naa ne tamit namoon ngeen ñu. Baye Jili maa ngi lay nuyu di la saa bu baax a baax. na mm. namoon naa lii lool lool lool waaye. démb waxtaan nañ ci bërki démb waxtaan nañ ci làmb ak problème mu écrit yi ak écrit gi ni muy doxee. Mm. tey ñu taamuwaat beneen écrit boo xamante ni dañ cee war a waxtaan ku ci mel ni écrit bi yor titre roi des arènes muy Rock Énergie. waa parcelle euh, waaw waa parcelle euh, Rock nekk écrit boo xamante ni euh, daanaka mën nañ ni ay champion yu bari sosoo nañ fa. Mm-hmm. ñu demit Euh, la dal waa fas bërki démb gis nañ ko ci Rock Énergie ku am sept combats benn victoire lañ ci am ak euh, six défaites euh, loolu dafa doon loo xamante ni war nañ ci mën a taxaw seetlu xool lan mooy seen problème ak écurie bu mel ni Rock Énergie ban gis-gis nga ci am ñi ñu yaakaaroon ni seen combat yëpp buñ ci bëree dinañ ci am ndam dañoo am defet nan nga gisee Rock Énergie ci sept combats benn victoire six defet bàyyi ji loolu ni ma ko mën a jàngatee wax si nañ ma baal ci kàddu yi. Hmm. mais zéro palmarès la. Hmm. parce que mënoo équipe bu mag bu toll nii Rock Énergie. Hmm. warul mën a am sept combats ñu koy lim benn victoire parce que boo xoolee daanaka seen ténor yi amuñu combat. ku ci mel ni Modou Lo bëriwul ku ci mel ni Laye Batago bëriwul ak ñeneen xale yi nga xamante ne ñoo topp ci ginnaaw ñooñu mais ñi nga xamante ne ñoo fa nekk seen liggéey dafa des. parce que mën maa comprendre bu toll noonu. yow titre roi des arènes yenn équipe yëpp dañoo waroon wax ne waa Rock Énergie laa war a bëri wala ñoom laa bëgg a bëri mais mënuma nangu ñu am benn victoire six défaites mhm. liggéey bi dafa des bu baax a baax a baax seen ci ñoom. Mhm. damaa xamul nag ci entraîneur bi la wala ci mbëri la man daal comprendre ma. parce que parce que d'habitude am na ci combat yoo xamante ne damay jàpp ne mbër Rock Énergie bokk nañ ci ñu ko moom. Mm-hmm. mais dañ koy ñàkk ci ñàkk boo xamante ni munoo munoo ko tuddee nu mu demee boo xoolee journée bi suñu papa sëñ Modou Niang tëggoon fële ci arène national mm-hmm. dox ci diggante Moustique ak euh, Boy Sine. Boy Sine bi mu ñëwee ni mu entendre combat bi baaxoon na. mais mu dem ba ci digg bi topp xeex bi ba Moustique daan ko benn jël bu amul benn werante boo xoolee tamit pëtiloo Lo bi mu bëri woon euh, stade Jom Iba Mar Diop moom it noonu la ñàkkee combat bi parce que këpp doon bëreel daf ko joxul cër. respecté wu ko bëreeg moom ci anam boo xamante ni bëre xale dëgg dëgg la fa indi ba keroog ni mu ñàkkee combat bi est-ce que du li titre bi ñëw biir Rock Énergie moo tax xale yi commencé bàyyi seen loxo. est-ce que du da ngay wax doylu woo. est-ce que hmm. doylu wuñ ndax li ñu am ku ne bëgg na koo am fi jamono ji ñu toll. Hmm. waaye dafa nekk xamante ni nii jamono ji ñu toll nii mënul yàgg fenn. Hmm. ndax xale yi fi mu toll nii koo ci wax mënul waa des laa bëgg a nekk tax na koo ko ci am ku nekk war nga koo garder kii di Modou mii seen seen seen seen seen seen tête de file. Mm-hmm. moo ngi sàmm moo ngi koy sàmm di xool nu mu ko mën a gën a yor mu gën a jëm ca kanam. Mm-hmm. mais ñii di xale yi fa nekk war nañoo mën a defaraat seen taxawaay parce que parcelle Rock Énergie dañoo yàgg dafa ay mbër. Mm-hmm. boo xoolee kii di Zos fa la jógee. Garga Mbossé fa la jógee. Zarko mi nekk Grand mbooloo fa la jógee. Mm. yàgg na génne ay xale yoo xamante ni fu ñu dem buñ sampee équipe doon ay ay ñoo xamante ni. papis général fa la général waaw. Mm, mm. yàgg na nekk équipe boo xamante ni maanaam formation lay nekk comme mën na wax ne Fass. ndax fii Parcelles yaatu na. mais boo xoolee am na équipe yu bari bari yoo xamante ne juddu nañ fi te foofu lañ jógee. Hmm. ñoom yi nga xamante ne nag maanaam mën naa wax na ñoo mujjee puso bi. dañoo hmm. war a góorgóorlu ba puso bi bañ a réer seen i loxo ñoom bàyyi ji hmm. xale yi fa nekk. waaw moo tax xale yi fi mu toll nii li ñuy wax rek euh, làmb dafa am nu koy doxal li koy doxal mooy équipe bu mel ni Rock Énergie ngeen am coach bu mel ni Pape Mbaye am yeneen encadrement yoo xamante ne macha allah gëm-gëm bi ñu am ci làmb bi Modou Lo amoon ci làmb bi muy dugg si ñu naan du dem. mënul doon champion dafa tuuti taay bi baaxul amul gabri mu gëm ko ànd ak moom gëm boppam liggéey ba doon roi des arènes jël ko ak manière ci kaw Eumeu kon yéen ñi nga xamante ne yéen ay révération bi doon ay xale war a jóg jëm ci kaw am na ci ñoo xamante ne ñu ngi leen di gis mais lenn li làmb mun na leen ko baal mais lenn li làmb mënul leen ko baal comme ku mel ni Petit Lo bi muy njëkk dugg si ci làmb yaakaar naa ne journée bi mu njëkk a bëre jam production moo ko tëgg mu bëree ñëw daan jël bu rëy waaw daan jël bu rëy parce que bi mu ñëwee dugg si dañ ne kii jarbaatu Modou Lo la mhm. jarbaatu Modou Lo bi mu ñëwee dafa jëfe loolu dafa jëfe ni man jarbaatu Modou Lo la bëri ci combat bi daan daan ak manière daan jël daan jël bu rëy bu amul benn werante ñuy jàpp ne xale bii kat avenir làmb la tey lépp lu Modou Lo ñàkk ci làmb moom Petit Lo mën na koo indi ñu jékki-jékki gisaat ko deuxième combat am mu indiwaat leneen loo xamante ni gisuñu woon li mu doon indi bu njëkk mu mel ni dafa am ndam xaw a xaw a xaw a boppam wala mu xaw a kontaan wala mu jàpp ni làmb ji moo mën ñëpp te làmb Ouzin kenn mënul kenn mbërul ak énergie yi ñoom ñëpp ay champion ñu nga fa jegaan boo ko gisee dangay xam ni kii champion la lépp lu luñ ko war a mën a defaral ci làmb rek war naa mën a dox diggante ak Modou Diakhaté waroon nañ koo mën a bëre yàggul tuuti mais feebar bee tax combat boobu amul. nga xam ni ñoom ñooñu ñëpp ay xale lañ ku mel ni Boy Sine boo ko gisee xoolal jëmm ji. xolo taay bi ni mu yor. Hmm. mais Boy Sine bu ñëwee dugg si ci làmb ba ba bëree rek dangay gis ni moom xeex bi lay gën a favoriser te làmb ñaar la daa am bëre ak dóor li sama père Max Mbargane doon wax mu koy nuyu. au passage mu ne làmb ñaar la dañ lay séentu ci fetal nga fit ñu séentu la ci fit nga fetal mais fi mu toll nii Rock Énergie yaakaar naa ne fi mu toll nii ñu ngi ci guddi gu bës rek. mais ba ji. Hmm. nañ taxaw seetlu leen. Hmm. est-ce que entraînement yaa ngi jaar yoon. parce que boo xoolee kii di centre de fil. Hmm. muy Modou Lo. maanaam créé na benn groupe boo xam te ni moom Papa Sow Garga Franc ah, ñoom Goro Sock. être ñooy faral di ànd te écurie d'habitude dañ naan gis kii di tête bi. su ñëwee xale dañu am courage ñoo entraîné. Mm-hmm. supporter am courage ñoo entraîné mais boo xoolee Modou Lo li nga koy gis ci biir kii bi daanaka bariwul. kon da nga bëgg a wax ni Modou moo tax xale yi ñuy bëre man pour man su dee làmb dama ko opté mu nekk suma métier Ouzin moduloo mu ñëw ci écurie ba. Mm-hmm. ak mu ñàkk ñëw ci écurie ba laa yemale. waaw day doon koo xamante ni euh, teg ko bët rek. di di roy ci moom ci jaloore bi mu def ci làmb. est que xam nga am na xale yoo xamante ni diwa tax ñu dugg ci làmb. Mm-hmm. doy na fi am na ñoo xamante ne tey comme ku ci mel ne Ardo bi nekk Golf Gaynde hmm. kooku bu taxawee di bëre mën nga ne Modou Lo bu njëkk ba moo dellu si hmm. parce que dañ koy roy lu bari. xale ya fa am na ñoo xamante ni Modou Lo buñ ba leen semaine bi Modou Lo dañoo entraînement buñ doon dem géej dañ koy bàyyi. Hmm. suñ doon dem dindi dañ koy bàyyi. mais ngay entraîné amuloo combat ki la tax ki la tax a gën a bëgg làmb ñëw ci écurie ba. écurie bàyyi ji dafa am loo xamante ni base ba la. kii di Balla Gaye su équipe ba day neex. Mm-hmm. kii di Eumeu Sène su dee ñëw taay sunga mm-hmm. équipe ba day neex. Mm-hmm. Modou Lo tey su dee ñëw bi école unité 10 bi yow xam nga ne foofu day fees del macha allah mais mais Ouzin est-ce mbër yi ñu ngi demati ci écurie écurie yi daa mel ni fi toll nii mbër yi ray nañ ba mu dee mbër yu mag yëpp d'habitude duñ jaar ci écurie ba même bu ñuy entraîner sax dañuy woo seen quelques mbër. seen moromu naataangoo ñu ànd ak ñoom soit ñiy dem Lac Rose soit ñiy dem géeju inte inte 15 ñiy dem géeju caare yi ñiy dem et cetera di dem ci ay géej di dajaloo foofu ñoom bëri te balaa ñuy mën a entraîner vingt heures jot wala vingt et une parce que jàpp nañ ni léegi ay star lañ bu ñu entraîner mbooloo mi day ñëw te pourtant kat Balla Gaye 2 daan na fi def benn bu daan entraîner. di ko def stade euh, Amadou Barry ñu ci bari dañ daan ñëw taxaw di ko seetaan. mu def entraînement am ak yenn moroom naataangoo mbërëm ñu ñu ñu dem Rock Énergie bu njëkk bu muut Lo daan bëre entraînement am ñëpp dañ daan dagg seen yitte demoon nañ sax bay def entrée deux cent xamu trois cent pour que ñuy dugg di seetaan si entrainement yi loolu dafa bokk ci luy luy may xale yi confiance mais loolu dafa bokk ci luy gën a doxal làmb léegi écurie yi doo dem ba gis fa leader écurie yi ñu fay entraîné. baa ji li waxoon naa la fi mhm. bëgg bëggee nekk lépp lu koy def mbër da koy def su demee ba nekk mbër lépp lu ko yàqal da koy def gis nga tey nga ñëw ci écurie bi di nga fa gis ku gaaw di fa gis ku yéex di nga fa gis kuy def ay kele di nga fa gis ko amatul bu jàppee day téye maanaam li la manqué woon wala li nga xamante ne nii bëggoon nga ko lépp da nga koy am ci écurie bi ci benn jour bi mhm. parce que di nga dina la boole booy bu ndaw moom dalay sonal Hmm. dinañ la boole koo xamante ni da lay ngay ngay ngay def muy dindi koo xamante ni moom da ngay taxaw ak boo sonnee sax mën ngaa taxaw moom muy def ngay dindi hmm. maanaam yu ci bari da koy dabu ci seen biir mais tey imaginer su fekkee da jël ay luur ku ci mel ni Franc hmm. ku ci mel ni Papa Sow ku ci mel ni Goro Sock xam nga ñooñu bu ñu duggee génn ñaar. Garga 2 Garga 2 Yékini Junior Yékini Junior ñooñu li la booy ndaw yi mën a may. ñoom mënuñ la koo may. bañ na ko ba da nga am combat ñu ne la ki ngay bëree kat mook aadama mi ñëw tolloo. Hmm. ñu jël aadama jox la ko. mu lay sonal di la kii day defaraat sa koofu. Hmm. maanaam bëri ci biir écurie am na lu bëri lu mu lay yokk ba pare ñi lay supporté dañuy xam seen mbër fi mu toll. buñ demee làmb ja mën na yëkki seen xaalis teg ko seen mbër ndax xam ne ne bu dee koofu la mat na bu dee contact bi baax na su dee doole ji tamit wóolu nañ ci mais tey da ngeen gis supporté boobu day dem ci làmb ja. baa jiir mun laa wax mbër ñi la pare. Hmm. chaque jour bett na ma wala boo kii gi watuma ko parce que liggéeyul sa kanam nga gis ko mbër yëpp daf cee ñoo xamante ni nii waxuma waa Eco Énergie mais mbër yëpp laay waxal. am na ñoo xamante nii tey dañ jël jël combat ba bésub làmb ji mënuñ la wax tey nii lañ taxawee. amateur wala ñi nga xamante nii dañuy seetaan làmb dañ naan booy bi am na lu mu manqué. Hmm. et pourtant su doon dem ci écurie ba dina ko dina ko matal ba mat sëkk mbëri dañoo war a delluwaat écurie di entraîner même bu fekkee amuñ écurie hmm. géej. gi du jeex. waaw ñii ay Eumeu ay hmm. Modou seen wàll la ngi parce que làmb duñ ci topp di bëre ba kenn xamul boo yi ndaw yi fi nekk ñoom ñoo leen mën a jox confiance di jàkkaarloo ak ñoom di leen may fit parce que su ma jàppee Modou Lô Modou Lô jàpp daan ko ma jàpp Modou Lô yëngal ko dinaa gën a am confiance su ne man kat war naa mën am dara ci làmb loolu da ciy baax xale yi mbëri mag yi nañ jàppalewaat xale yi comme ñoom ñu ne ko seen mag doon defalee bàyyi ji mm. loolu da ciy baax da ci am solo lool lool mm. dégg nga li Ousseyn wax da ciy baax da ci am solo lool loolu mbokk yi ñu leen di rek du dañoo am xam-xam moo tax ñu toog fii di wax yéen ñuy seetaan yéen ñoo xam-xam foofu yéen la ñu gën a xam làmb waaye dañuy doon loo xamante ne dañuy waxtaan ku ci nekk ak li nekk sa xel ku ci nekk ak li nga xamante ne loolu nga xalaat te lépp luy defar làmb la buñ sañoon écrit yëpp jëm ca kanam suñ sañoon xale yëpp bëgg a doon champion bëgg a tedd ci làmb nga teral ci say ñaari waajur ci ni nga ko bëggee mais Ouzin fi mu toll nii. est-ce que Rock Énergie bi ñu doon gis 2010 Rock Énergie bi ñu doon gis 2011 est-ce que Rock Énergie boobu mën nañ ko gisaat ci làmb. mën nañ ko gisaat bàyyi ji lii. ci làmb ci kaw. ñu hmm. liggéeyaat. boola hmm. boolawaat taxaw. parce que man sama gis-gis laay wax. Hmm. mën naa ne Rock Énergie amatul tête de amatul tête de fil parce que kii du Modou Lo mm-hmm. gis nga làmb dafa am fooy toll yu bàyyi doodoo ko mënati mm-hmm. wala yu bàyyi doodoo ko talati wala jot gi moo la ko dul may mm-hmm. ndax ñoom tamit am na yeneen sox yooyu dul làmb kon ñi nga xamante ni ñoo fa nekk ñoo booloo jàppante ba ki nga xamante ni mooy Modou Lo bu ñëwee mën a topp seen gannaaw liggéeyandoo ak ñoom la ñu bëgg ci làmb ñu am ko ndax boo xoolee ki di Pambay ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul. Mm-hmm. moo jàpp ci xale yi ku ci am combat moom ngi gis moo koy toogal siis moo koy préparé ba bisub làmb ji mu andi ko. Mm-hmm. lu yàlla def waaw peer juga mm-hmm. lu yàlla def ñu xam ne noonu la. mais ñoom ñi nga xamante ni ni tey sport dafa làmb dafa nekk sport boo xam ne dafa individuel. boo demee ñëpp mën naa laa yóbbu mais bu ñu ñëwee ci biti la ñuy yem yaa dugg wane sa bopp. wàllum benn ku ñëw ci bind ba nga yem. waaw sa bopp. kon nag ci loolu amee avant làmb la lay may ndam wala la lay jox confiance. Mm-hmm. ba li la boo ñëwee la nga war a joxe nga joxe ko yow yaa koy liggéey kon ñoom ñoo war a mànkoo nga làmb bi mu ñàkkee kujje. Mm-hmm. la làmb naqari chaque jour wax ko dafa woon am ci koo xamante ni bokkuñu écurie daan na damaa war daan wala man ak yow ñu bokk écurie sa combat bi da ngaa xeex da ngaa bëgg daan man damaa war def noonu. teg la bët du teg la dama lay teg bët comme dama laa bañ. Mhm. mais lu baax dañ koy roy. dëgg la lu baax dañ koy roy bàyyi kii mhm. dañoo war a kujje seen biir. Mhm. su ma gisee kii ma xam ne ah saison daaw bi ak lii wute na ma fexe balaa saison bi jeex ma jéem laa dab wala boog ma fexe mel ni yow. loolu da ciy baax bàyyi ji parce que seen i naataangoo mbër dong ñoo nekk ci écurie ba. Euh, di bëre mais dañoo war a xoolaat bu baax a baax a baax taxawaay wi Rock Énergie jafewul ñu am mbër moo xamante ni wala wala ñu am mbër moo xamante ni. bu dugg see ci làmb doo ne non kii du dem. te ay avenir u làmb doo nga fa nekk. est-ce que ah. hmm. dafa amoon ay escalier yoo xamante ni équipe boo dem boo fa génnee ku toll ci étape bi soo ñëwee énergie mën nga faa génne boole kook moom. Hmm. te énergie ren dafa manqué boo nee laay boo limee ñaar fa nga hmm. des ñëpp ay mbiru troisième combat lañ quatrième combat cinquième combat te énergie dafa amoon xoolal bi fa Garga Mbossé di nekk. super super jamono nekk fa. métrage mm. euh, nekk fa xaadim mm. euh, gajiga nekk fa. Mm. Euh, Modou Lo nekk fa. foo génnee mbër beneen écurie mën nga ko fa booleeg moom. mais tey fi mu toll boo génnee Laye Pythagore ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax moo ngi jóge ci combat moom ñàkk jaayuñu. am ci defet boo jëlee ci ko boo jógee ci moom ci Modou Lo ngay dali Modou Lo fi mu toll nii amul base. loolooy waral muy dem di xëcc ay Garga 2 ay Goro Sock ay Yékini Junior Papa war na loolu war na ko mën a am ci biir écurie ndax ñàkk fa ñoo xamante ni suñ leen liggéeyee def ci ñoom la ñu war def ci ñoom war nañoo mën a taxawaay taxawaay boobu bàyyi ji li mais ce que du lu ñu nekk parcelle ñoom ñëpp ñu booloo parce que Ouzin man tamit li ma gis mooy écurie yu bari yi benn côté am na ci lu muy defar mais benn côté am na ci lu muy yàq parce que Rock Énergie tey fi mu toll ni mbokk yi la ñuy waxtaanee lépp ci Rock Énergie la ñuy waxtaanee ngir li nga xamante ni am nañ ko ku bëree sept combats ci saison bi maanaam cinq mois yi euh, ñu am ci sept combats benn victoire la ci am six défaites ci équipe bu mel ni Rock Énergie formé ay champion naan bu nekk jaar ci seen loxo tey Modou moo fa nekk mais Ouzin fi mu toll nii Modou ci boppam bu jékki-jékki woon retraité euh, ci làmb fi mu toll nii relève bi Rock Énergie kan nga jàpp ni moom moo ko fa war a mën a jël parce que fi mu toll nii amul benn mbër boo xamante ne bu weesoo jegaan euh, weesu Boy Sine amul keneen weesu Laye Pythagore dafa gis keneen koo xamante ni jàpp nga ni kii bu bëree woon tey arène nationale grand combat mu fees léegi loolu noonu ci ñan la ci mbër ñoom ñoo war a liggéeyaat ba ba ba confiance bi askan bi amoon ci ñoom ñuy mën di ñëw wala mbëri ci boppam ñoom ñoo ñoom ñoo topp ci ginnaaw Modou jàpp ni lépp Modou Lo moo leen ko war a defal ci équipe bi. baa ñoo war a liggéey loolu. ndax kii di entraîneur bi kii di Pape Mbaye wala Père Ndiouga amul lu dul entraînement jot mu woo la wala yow sax yaa ko woo la ñëw nga maa ngi ci école bi. Hmm. loolu ñoo ko war def gis nga làmb li ma la ko wax léegi sport individuel la. Hmm. maanaam lépp la nga xamante ni ñoom yéen rek lañ am kii di Père Ndiouga kii di. Euh, Pape Mbaye Pape Mbaye. Hmm. yéen lañ am ci xale yi. parce que dañuy bàyyi seen yitte yëpp xale yi fayul leen benn yoon ñu ñoo di leen jàppale. kon ñoom ñoo woon ba dëgër ne képp ku soxla Modou da nga daan gis si xale yi balaa ngaa jot ci Modou ci man ngay jaar balaa ngaa jot ci la ci man ngay jaar. Hmm. mu nekk genre escalier boo xamante ne nii Modou day sawa jël la teg la ci kanamam. da lay teg lu metti ci di laay pédagogue amoon na yaakaar ci moom. mu hmm. dem ba ci biir affaire bi échec kenn xamul lan la. Hmm. kenn xamul lan la bëri daal benn instant doo comprendre. doo comprendre war ñoo gën a mën a taxawaat liggéeyaat bu baax a baax te xam ne làmb ji kenn moomu ko. bu njëkk Balla Gaye Modou Lo ba ñuy bëree ñoom ñaar ba ñu laalee ba pare da ngay dem ba mujj gi da ngay yaakaar école de lutte Père Balla Gaye adversaire bu mu mun a am rek Rock Énergie la nekk. Mm-hmm. da ngay gis mbër mu ndaw bu nekk école de lutte per Balla ñu jox ma diw Rock Énergie la nekk chaque jour ñuy bëgg di indi dër bi diggante Modou Lo Balla waaw ñu ñuy def loolu mais loolu yëpp gisatuñ ko fi mu toll nii xale yi dafa mel ni euh, bëgg nañ làmb gaa ñu ngi koy dund mais dafa mel ni dafa am lu leen dese leen dese noonu nag daa mel ni jàppale la yéen ñi nga xamante ne yéen a dëkk Parcelles Assainies yéen ñi nga xamante ne am ngeen conseil ci xale yi yéen ñi nga xamante ne xale yi seen ginnaaw la ñuy topp fu seen bët xonqee yéen rek la ñuy gis woo leen xale yi ngeen jàppale leen dem leen biir Rock Énergie commencé ci président bi Khadim Gadiaga ngeen jàppale xale yi xool lu ñu manqué ngeen defar ko xool li nga xamante moo mën couleur rock énergie ba mu jëm ca kanam ngeen defal ko xale yi parce que nag yaakaar naa ni euh, li wolof naan ëllëgu réew ci xale yi la nekk te ëllëgu làmb tamit la Modou Lo am ci làmb xale yi mën nañoo am lu kawe seen njort te Modou Lo loolu la leen di ñaanal Modou bu sañoon fi mu toll nii day bëri ba tekk ngembam titre bii di roi des arènes bi kenn du ko jël ci moom waaye nag làmb du loolu. parce que comme Yaxya Jóob Yékini moo def onze ans de carrière daanu ci te yaakaaruma ni roi des arènes bi fi mu toll nii natango bi ci kaw ñëpp ku ci nekk ëppoo sa morom doole ñaari yoon ku ci bëre euh, ñett combat wala ñeent combat sa morom jël ko ku ci bërewaat beneen ñett combat ñeent combat. sa roi des arènes bi benn nen la ci digg géew hmm. kenn du ko jël yóbbu de. déedéet. lu leer laa lay gis nga làmb. Hmm. dafa mel ni nawetaan. Hmm. gis nga nawetaan ni mu mel koñ bu nekk am équipe. làmb noonu la mel koñ bu koñ boo dugg paaseel te mbër ba fay nekk ña fa nekk wër ko ñoo ko war a jàppale muy seeni supporter hmm. lamb da nga daan gis mbër mu ñëw ñoo ko tay sa waaye tey entraîné wala temps nekkoo ci dara temps jàpp loolu looy def suivre suivre boobu ñu ko doon day baax ci moom ba nga xamante ni du am temps Noël du am temps mu nekk dañ koy dem jëli mais ñi nga xamante ne ñoo wër mbër bi ñoo war di ci jàpp war di ci jàpp di dem di gisante coach bi est-ce que mbër ñëw est-ce que mbër gi entraîné mais yooyu yëpp su ci amatul mbër bi lay yaafuus Mm-hmm. du dem entraînement temps du dem chaque jour et day denaan day day day nooyal te loolu buy bu bu nekkee ci mbër rek bu yàggee mu bàyyi ko surtout mbër moo xamante ne tam day nooyal dem daan ndax entraînement yi ci dara. Mm-hmm. su demee ñu daanaan ko mënoonoo béba day dem sax daan. benn combat bi ñëw dem entraînement mu dem entraînement ñu daan ko mun a ah ax loolu yow yow yow yow mbër. Mm-hmm. te amaana du loolu. mbër dafa chaque jour man chaque jour moo ko mënumaa nangu mbër moo xamante ni nii day ñëw ci combat te du nekk état man mënumaa nangu loolu. nga ne bàyyi naa lépp làmb mooy sama métier ba simmi ko ñëwaat kii fan la nekkoon moom mënu ma la nangu wala weer état wu 2011 ba 2020 état bi yokkul. mun ma ko nangu ci wàññeekuwul. mun ma ko nangu mm. saa boo simmee ko amateur yi say supporters kontaan ñu xam ne kii kat la moo def ci làmb yëpp def na ko. Mm. su la daanee sax duñ la mel mais nga simmee ko ñëw mel ni man. Mm. ñu duma la daan la. boo demee dañ naan la sa waay bàyyi. Mm-hmm. boo fekkee ñu mel ni ma ñun ah kii day font rek boo yàgg di wax da ngay yaafus. Mm-hmm. te loolu baaxul ci mbër. Mm-hmm. kuy wut du yaafus bàyyi ji jërëjëf Ouzin wax ji am na solo loolu kuy wut du yaafus euh, sama papa père Birahim Ndiaye da ko doon wax nee na mbër yi ñu ci bari xale yu bari dañoo bëgg a doon mbër mais nee na boo ñëwee li mu lay njëkk a laaj ba xam am nga métier. nga ni waaw mu ne la métier bi mun nga ko booleek làmb di ko def waaye boo ñëwee mel yor comme sama taay bi. xamante ni ku la dóor nga nga nga nga teel a tëdd danaa la bu dee am nga beneen xëy. sama xel bàyyi ko bàyyi ko sama xarit la. Ah, waaw xaadim daa dem daa dem daa dem ci père Birahim boo gisee xaadim ànd sekk mooy mbër boo xamante ne dafa toll ni comme suñu suñu suñu DG bi rek sëñ Bass léegi euh, xaadim dafa dem ci école de lit euh, père Birahim Ndiaye bi mu fa demee euh, père Birahim gis ko ci biir xale yi muy daw. macha allah mu nekk koo xamante ko bàyyi bu daw ñaari tur waaw bu daw ñaari tur <laughs> léegi loolu Ouzin laay bàyyi bu yeggale ko nga waxtaan léegi loolu. loolu <laughs> demee dégg naa xaadim daa ñëw taw benn tour dafa deuxième tour. <laughs> benn waay jaay na ko booy kaay. mu ñëw mu ne ko yow loo bëgg. waaw mun na ko dangaa bëgg booy mun na ko booy. Ah. soo amee benn métier dama nga def nga bàyyi làmb ji. <laughs> donc ba tey génnul làmb ji. ndeysaan ñoo koy nuyu bu baax a baax di nuyu Modou Anta. ndeysaan baax ñoo koy bu baax a baax baax lañu. ndeysaan di leen jaajëfal fépp fu waay mën a di leen wax ni dañuy fo rek dañuy kaf ree lépp ci luy defar làmb bëgguñu kenn gis ci sa bopp euh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen wax ni gis nañ yéene yi ngeen am ci wasaare gis nañ ñaan yi ngeen ñaanal wasaare gis nañ jafe-jafe bi nga xamante ni wasaare am nañ ko barki démb ngeen ànd ci ak ñun ci ànd bu rafet di woote téléphone di laaj fi affaire yi toll ñu leen di jaajëfal ñi ma woo ñëpp muy promoteurs yi muy supporters yi muy amateuru làmb yi yéen ñëpp ñu leen di jaajëfal mënuñoo lim ndax ku lim doo matal tey bëgguñoo lim kenn bàyyi ña ca des ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen wax ni gis nañ ñaani gën leen a yokk ñaani yàlla baax na li ci kanam raw li bët Ouzin di la jaajëfal bu baax a baax a baax di ànd kontaan te ci ci ànd bu rafet bi ñu ànd tey dama jël kontaan sama xol dafa sedd mhm. ndax damay bëgg euh, di jëflante ak yow yi ndax làmb dafa nekk loo xamante ni ñun mm-hmm. ay xale lañ ci. Mm-hmm. Mm-hmm. te teewul saa bu ñu ko defee nit ñu woo ñu. nañ defee leen nangam su ngeen defee woon nangam mu gën a rafet. ñu leen ciy gërëm bu baax a baax di leen ci sant bu baax a baax te xam ne mataluñu mënuñu dara. dañuy topp seen ginnaaw ak seen i waaw la ñuy wëy. ku ci mel ni kàggu des fois mu jàpp ci wax ci wax yu am solo aadama noonu ah sëñ Bas noonu. ñeneen ñeneen noonu loolu mooy seen wareef ci ñun ndax ñun. peut-être li leen ëpp mooy ku wax ak mais yéen gën a xam làmb fuuf. Hmm. waaw di di di sant bu baax a baax ki nga xamante ni mooy Ndeye Rama. Hmm. maa koy nuyu di ko gërëm bu baax a baax day def anniversaire le 10 il mu anticiper ko. xaw nga xam ne ni ah waaw. Ah, <laughs> sama nit la ah kon <laughs> xaw ma ko de. kii ko joyeux anniversaire. Ah. di la ñaanal dund dund bu yaatu. gudd fan wér-gu-yaram xaalis bu bëri. Hmm. yàlla may la jikko ju baax fi nga toll ci man xam naa ko chaque jour yaa ngi may nemmeeku di ma lijjanti di xool ci la laa nekk maa ngi lay nuyu di nuyu seen waa bu baax a baax a baax a baax ñoo ngi foofu ci Pikine maa ngi leen di bégg bu baax a baax. bàyyi ji li soo mënee tëj ñu tëj. jërëjëf Ouzin wax la rafet la trop kon xam naa sama martu bi comme man maa moom daf may abal rek ba siyaar ñaari nit euh, ñoo xamante ne samay xarit lañ dañ may béggee euh, ki ci mel ni borom Turquie borom Istanbul muy Xaasum Cissé Seri Diarra Boussa Baye Fana. ak Lamine daal di ñëwagul ba léegi de. <laughs> non a xam maa lay bu baax a baax di la wax ni euh, maa lay déglu maa lay xaar di siyaaraat bu baax a baax Ngala Fall moom it ma nga foofu ci Turki borom Istanbul ma koy siyaar bu baax a baax a baax di ko jaajëfal saa su ne gis naa message yi may envoyé gis naa yéene gi mu am ci man di leen jaajëfal mbokk yi di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqaliko di jaajëfal bu baax a baax a baax le grand cadreur Adama di ko jaajëfal bu baax a baax a baax loo cadré ak baaxul mbokk yi di leen tàgg ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqaliko ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb jërë ngeen jëf